Sénégal ànd ak ay partenaire am Salim Dieda World Trading Clinique Marie ak Al Madina International Travel ñoo leen di may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur. salaamaaleykum euh, auditeur u Sen Info tey euh, ñu ngi dellusiwaat euh, comme tous les mercredis. pour euh, voir sur les mercredis du docteur euh, Konaté tey nag euh, émission bi def euh, nekk une émission particulière parce que dama bëgg aborder benn sujet boo xam ne sujet bi benn waxtaan boo xam ne c'est particulier euh, du benn feebar ah na nekk feebar yu bëre ëmb na feebar yu bëre euh, te dama bëgg tey ngeen déglu ma bu baax ngeen déglu ak seen xel parce que euh, lim leen di wax nii du bare ñoo xam ne di dinañ leen ko wax. loo xam ne pour yéen la di ngeen ci bénéficier seen famille bénéficier ci euh, seen mbokk yi bénéficier ci parce que li ñuy wax ni dama gis ne nekk dafa nekk di def ravage yu bëre bëre bëre bëre ruiner ay famille euh, gis naa ñoo xam ne euh, sur un mois ñu dépensé dix quinze millions pour faj benn nit et je pèse mes dix quinze millions ñu jëndal leen ay garab yoo xam ne njëg bi ëpp na dix millions mais un mois nit ki décédé gis naa ñoo xam ne jaay nañu kër. jaay oto jaay leneen ak leneen pour mun a faj li may ñëw wax ni tudd nii ils se sont mais finalement nit ki dafa décédé dafa gaañu mu mel ni xaalis boobu xaalis bu bëri boobu wala kër yooyu dañ ko taal ko tey dama bëgg ñu wax tuuti si cancer soo leen déggee ñuy wax cancer euh, ni mu leen di mun a expliquer ah yéen mbooloo bi lu simple la cest à xam nga nit cër dafa am loo xam ne moom moo koy composé li nga xam ne nag moo gën a ndaw si composition boobu moom la ñuy wax cellule. cellule moom moo gën a ndaw si li nga xam ne moom moo ëmb suñu cër yi léegi cellule boobu dafay mel ni day mel ni dafa dof su melee ni nag euh, dafa dof dafay nekk di multiplier wu te su multiplier wu ba benn instant fi muy multiplier wu dafay jóge foofu dem jàppa yeneen cër loolu la ñuy wax euh, métastase te foofu suñ ko tolluwee bul sax sonn du wax ne que ne duñu waruñu toppatoo nit ki loolu suñu cër la parce que malade dañu war a dem ak moom ba jeex loolu moom suñu cër la même suñu ne mu wóor ne ko kii dans une minute euh, bakkanam day rot dañ koy toppatoo ba une minute boobu jàll. donc euh, am na foo xam ne affaire bi su fa tolluwee eh bien <laughs> da ngeen sonn rek mais kooku di ngeen ko suul suul bu gaaw te euh, mun na dem si ay conditions yoo xam ne dafa metti parce que dina am ay métit yu tar yoo xam ne. Euh, du bare garab yoo xam ne ñoom ñoo koy mun a soulager dina dem ba lekk dootu ko man naan dootu ko man am na ñoo xam ne tax dinañu dem ba pour ñu def seen euh, cabinet dafay metti donc euh, nga xam ne que ne doy na waaru te pourtant cellule bi mu leen wax ne dafa dof am na benn affaire bu ndaw boo xam ne suñ ko defee rek ñun ñëpp man en premier sama famille samay mbokk waa Sénégal waa àdduna ñëpp suñ ko defee rek euh, du ma wax ne que ne cancer dootul euh, dugguti dootul nekkati mais dina wàññeeku lu bëre bëre bëre bëre te élément yoo xam ne yu simple simple la bii nga xam ne moom moo si njëkk bi nga xam ne moom moo si njëkk moom mooy ñu wàññi suñu mënul bàyyi suuf suukar bi ñu wàññi ko au parce que suukar du non seulement ay diabète ak yu demee noonu kese lay lay lay lay lay mais suukar bokk na si li nga xam ne euh, moom mooy gën a favoriser app apparition wu cancer yi euh, sama mbokk yi le médecins dinañu wax ne nañu fagaru pour cancer bi nañu def ay dépistage mooy ay fraude yi ay mammographie ak demee noonu man nag man dama nu wax ne balaa ñuy yegg foofu bala sax dépistage bi nañu xool suñu façon lekk suñu mode de vie ah suñu mode de bi ñu xool nu ñuy def pour euh, améliorer ko te amélioration boobu premier bi c'est l'alimentation te alimentation bi moom mooy euh, wàññi li nga xam ne moom mooy suukar bi donc euh, loolu mooy donc wàññi suukar bi du prévenir seulement le fait ngeen am ay diabète mais ay xeetu feebar yu mel ni cancer te wax naa leen cancer donc euh, dafa dafa grave euh, si kaw loolu li nga xam ne moom mooy euh, yeneen élément lu mel ni par exemple ay ay yenn ay alcool par exemple ah léegi avant <laughs> pour nit ki màndi woon pour nit ki mànduwul il falle nga jënd alcool valeur bu deux mille francs trois mille francs wala plus mais léegi les jeunes avec cent francs deux cent francs les gens se saoulent dañuy màndi dañuy màndi dañuy yàq ay cër yoo xam ne ñu ngi ci euh, yaram bi su ñu ay cër yi après cellule bi dof transformé wu. jox la cancer jox la métastase jox la yeneen feebar ah jaaree par cirrhose euh, xam naa dinañu am euh, émission boo xam ne on va en parler jaaree par euh, cirrhose et puis andi leen ay problème am na beneen phénomène boo xam ne tamit dem si bëgg a insister dem si bëgg a insister c'est la prise du poids obésité ñun si au Sénégal par exemple jigéen bu xaw a jël waa nit ñi dañuy tàccu ne la ah da nga jongoma da nga dir yanke alors que loolu c'est extra c'est c'est extrêmement grave parce que ñi ngi tàcc li nga xam ne bu ëllëgee moom mooy nekk sa musiba donc euh, suñu jigéen yi euh, dañ leen di ñaax ah, bu fekkee da ngeen jël yenn poids yi ah, jéem leen ñëw euh, seet si ñu ah ñëw dans les structures de santé ñu expliquer leen euh, lan ngeen war a def euh, pour mun a perdre poids parce que suukar bi soo ko jëlee c'est grave soo demee tamit ba am yenn poids yi obésité c'est encore grave donc obésité ak suukar bi ñoom ñooy porte ouverte bi pour donc apparition ay feebar yu mel ni cancer. liñ leen di conseiller ah liñ leen di ñaax mooy benn alimentation boo xam ne dafa équilibré pas beaucoup de sucre pas beaucoup de gras fruits ak légumes na c'est-à-dire il faut que ngeen jël fi entre trois at cinq fruits par jour bu fekkee les gens ils les moyens euh, boire de l'eau il faut que ngeen di naan lu mu dee dee entre un litre ba un litre et demi même deux litres tolen ko mun a weesu euh, naan leen ndox moom ah na nekk ci seen euh, habitude euh, loolu su weesoo yaram bi il faut que muy yëngatu yaram lan moo koy yëngal sport donc euh, soo leen euh, defee benn vingt minutes ba trente minutes de marche parce que kenn laaju ngeen daw def benn sport bu intensif comme euh, benn sportif de haut niveau non def leen benn trente minutes de marche soo bu fekkee mënu leen Euh, ngeen def ko au moins cinq jours ci semaine bi euh, bu fekkee na am ngeen possibilité daw cukki cukki tuuti ak yooyu c'est ce sera encore euh, tant mieux mais sport bi il faut que ngeen yëngal seen yaram loolu soo leen ko boolee boole ko avoir ak benn bonne habitude alimentaire je pense que feebar yu bëri yu mel ni ay cancer ay Euh, diabète ay obésité ak yu yu mel noonu xeetu feebar yooyu bu boobaa euh, yéen di ngeen ci mun a mucc donc euh, je tenais tey moom dama bëggoon insister sur loolu pour que nit ñi gën a delloo seen xel ah bëggu loolu moo tax ma ne tey moom du ma benn feebar mais damay def benn prévention attirer seen attention parce que comme on dit fagaru bi moom moo gën faju bi euh, di leen remercier si déglu bi euh, di leen jox euh, dig daje le mercredi prochain merci à l'équipe à Abdel merci à aux auditeurs de Seneinfo à la prochaine international ànd ak ay partenaire am Salim Dieda World Trading Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo leen di may seen émission wér-gu-yaram les mercredis de docteur